salaamaaleykum ñu ngi leen nuyu di leen ziar di nuyu workat yi ci seen tur ak seen sant ñu dul wor nag maa leen di nuyu seen turu pap ak seen turu yaay ndax dañoo ñàkk jom mérité ñu leen di nuyu seen tur dañoo ñàkk jom di leen dalal bu baax ci seen émission leeral mu leer sooba yàlla bu dee yow rek <laughs> dara du fi man man man xaw ma tax ma bañ la yow. cëm sa ñaaw la bébé. sa xol bi de dinga ma ci poose sa kanam ngi mel ni saaga nday dinga ma ci poosé de. soobee yàlla. Hmm. man man dama xamul yow yow lu tax nga ñàkk jëm man xaw ma sa ñàkk jëm foo ko présenté ah, waaw waaw daa mel ni am na kuy fëgg rek bisimilah bisimilah bisimilah. waaleykum salaam waaleykum salaam. sëñ bi. waaw ndongo li. man de maa fi ñëw. bu baax. pour bëggoon leerlu la. waaw. ma bëggoon nga xoolal ma quoi dama dama sonn si koor yi. Ah. ndax damay mais day métti quoi day métti. ma na nga ñàkk jot. man daal xaw ma daal ay deux heures ma commencé xii mais day métti mu bëggoon daal nga seetal ma. sukk sukk sukk mboq sukk sukk mboq si biir. yow ah man daal seetal ma naan. gis nga gis nga suuf si ma côté de. waaw da ngay jënd 4 kilo melentaan. ñuule nag comme comme yii anañu yii gis nga yii 4 kilo melentaan ngay jënd. soo demee nga sàqim ko gis nga ni mu lay màttee noonu. 4 kilo melentaan. waaw ni mu lay màttee Non noonu la jom gi di duggee noonu la jom gi di duggee soo demee nga def loolu am lii nak may moo la ko da nga koy delloo si ah Serigne li nga ma wax nii moom 4 kilomètres. dama ne demal def li la ah, wax. naa dem naa dem essayé xool ba. ah ah bëgg am jóg. naa dem rek. ah yow de ñàkk nga keesa ni deewu fajar. Hmm? yegg si dama laa soxla di.